سعد من في دلا زمزره إن جندا من خياف قد سرى bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilah gannaaw ba ñu ñëwee rek ah, ci édition ah, Mawlud 2019 aji comme ni leen joxe woon rendez-vous rek ah, yéen mbokk internet yi nga xam te ni yéen a safoo Hann TV ñi nga i li xam te ni moom mooy am te Hann TV bàyyiwu leen benn yoon lépp loo xam te nag am na rek dañuy ànd ak yéen pas à pas ñu fi nga xam te ne moo di ci train bi ñu ñu tuddee ko petit train de banlieue ku ne xam na ni train bi nag fas na départ xamante ne moo di ci diwaan euh, yaraax ah gaar bu yaraax fas yéene dem ba Tiwaawoon dañuy def lu dul rek euh, daal di euh, dénk suñu micro rek ñoom ñi nga xam ne ñoo di pèlerins yi waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne rek moo di yoonu mawlud bi ah ilaa Tiwaawoon comme ni ñu koy faral di waxee rek salaamaaleykum soxna si maaleykum salaam maa ngi lay ziar bu baax ñu ngi dolli ziar bu baax a baax tur bi naka la man maa ngi tudd soxna Asou soxna Asou ñu ngi la fekk fii ci terrain petit train de banlieue ñu la fekk fii nga daal di toog lan moo waral lii ah, muy bisu bis bu sell bis bu tedd muy bisu mawlut ñu fësee na gàmm ji tamit nag lii di ngëneel parce que terrain bi moom comme lu mu ko mën a waxee rek mooy euh, amul coono daal amul coono et puis yaatu na yoon bi neex na amul lenn lu ñuy tardel daal ci yoon bi boo fi jullee tusubaar mën nga fa jullee timis euh, tiwaawan ndax yoon bu neex kon donc dañuy wax lu dul lima ñu gam rek ba mu neex lolu lañuy ñaan dal yegg si jam ak salam mhm. aca lan ngay denk rek euh, bu fekke am nga ben message bo xamne yank yaa ngi ko bëgg a lancé ñi nga xam ci ne ñom ñoy yor walum terrain bi ban message nga leen di wax. waaw ñi yor walum terrain bi nak mom gatché nga laa ma parce que suma tammi ci terre bi lay liggéey terre bi lay liggéey dañoo dañoo yaatu et puis dañoo ouvert dañ lay yaatal dañ lay dalal xam nga bu ñu ñëw fi dañu ne ñëw leen ñëw leen yoon baangi ni ta xamu ñoon fa la yoon bi commencé mais ñom ñoñu dalal ta bo ba légui nak ñu ngi ñuy romb di ñu nemmeeku xam nga di xol suñu xol ndax ñi ngi nek en l'aise ak loolu mais donc duñu def lu dul rek sante yalla dal lañu def waaw. acci kon ma déggaat sama micro rek mama bi bu ko defee mom rek bu am bu amé cadeau yi ci sante salam. alaykum mama ma alaykum salam bu ba wa ma ngi ziar. bi naka la mama Batoor bëgg nañ xam bu baax sa téway fi ci terrain bi euh, gis nga ni mom mo la gëna arranger wala lepp rek ci dem ci waawon wa man nak moma ma arranger parce que ma nga joggé ba aroy gi mais damay sante yalla dal di gëm ali Limaamu gor gu tedd gi ci jof di ñaanal nak ñu dem ak jamm ñew ak jamm parce que man aisa wona na da ngay da ngay tok kenn dula déranger ñom ñu ngi jappalé di ñu xol ba xam ñun ci lu ñuy dox wala lenen dal xam nga lu neex la dal da ngay tok aisa wu ba egg ak jamm ak salam ñuy ñaan nag yal na nu yàlla yóbbu si jàmm andiwaat ñu su jàmm di ñaan xéewal. ban kii euh, ban conseil rek nga nga bëgg daal de koy jox ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, direction bi. ah ñoom waa organisation bi ah di leen ñaanal rek ñu gën a góor waaw parce que niñ koy doxalee nii baax na. na si yow daal. baax na si man nag waaw ñuy sant yàlla nag di julli si góor gu tedd gi ci yoof di leen ñaanal ñaanal ñëpp ñaanal la yow mii si kàntanu yàlla yal nu yàlla may jàmm. ñu fekk ay déwén i déwén i déwén parce que man ay 6 ans ngi nii terrain rek laay dugg ECHO. kon chaque kon chaque année kon yow terrain bi rek ngay jël. rek laay jël man dem bi ak ñëw bi yëpp. donc gis nga si avancement bu baax. ah si bu baax moom moo dëgg yàlla macha allah yal na nu yàlla defal jàmm dégg waaw ñu fekk ay déwén i déwén waaw. maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax est-ce que du ma doxantu nànk rek xool euh, benn euh, bu ma mënee am benn benn baa rek dina baax. acca ba tey rek ñuy ci euh, petit train euh, de banlieue comme ni nga ko waxee rek euh, tere bi daal tarkaala macha allah gars yi apprécié nañ ko bu baax a baax ndax yàgg nañ koo jël miin nañ ko tàmm nañ ko damay def lu dul rek daal dégg sama micro sama papa bi mu ko defee rek ñu daal di xool yëf yi fu mu toll ba tey salaamaaleykum. maaleykum salaam. papa ñu la koy delloo. tur bi naka la. man Ousmane si laa tudd. Ousmane ñu ngi la fekk euh, petit train de euh, banlieue Nous avons xam un peu fii ak lan moo waral. Wow, ah xanaa parce que borom guddi gi koy dañu rek pour ko donc tax ñu ak samay samay samay samay samay xarit samay bon li gën am solo train bi dañuy yóbbu ba biir ville bi qui tax ñu gën ko privilégié man li tax train bi sax man man train. Parce que lorsque j'étais à le de Gaulle, train, donc c'est pour rester fidèle, vraiment le train là. Mmh. Donc, un arrangement là dans Mais oui, oui, oui, surtout parce que moi, deux là on voyager, mais embouteillage avec auto, je m'attends pas le train, puis je me en ville. waaw ban message bu importance nga bëgg la lancer ñoom ñi nga xam direction euh, D'abord, remercier l'État, l'autorité, les autorités ferroviaires en particulier parce que li vraiment un grand soulagement lay def pour pour pour la population parce que vraiment train li ci mën gis nga nii c'est climatisé bon vraiment on fait pas de la publicité mais mais mais amna solo trop waaw. waaw waaw ñu daje ci ca dëkk bu mag ba muy Tivaouane. alhamdulilah waaw waaw incha inshallah inshallah allah incha allah waaw waaw ñu daje fa waaw merci jërëjëf jërëjëf. jaajëf maa ngi koy kontaanee bu baax a baax ah dafa melni ni baax na de ah ah <laughs> ñu yegg fé ci biir mo dal di xol lan mo fa xewati lepp ci petit terrain euh, banlieue. ak sama cameraman topp ma ayca ba tey rek euh, ñu ngi ci euh, petit train de euh, banlieue ma jàkkaarloog sama yaay booy parce que ne leen laaj rek lan rek mooy seen taxawaay rawatina fii nga xam ne fa la leen fekk rek ñu daal di toog salaamaaleykum maman. waaleykum salaam wa rahmatulah. mu ngi ziar bu baax. ñu delloo ziar. tur bi naka la. Kumba

aji ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ah ba tey rek euh, ci euh, train bi ah comme ni ko gars yi waxee rek neex na de ah <laughs> macha allah foofa toj. ay na mbay see min liqaa ay ci mbokku internet yi nga xam te ne yéen a safoo Hann TV gis ngeen reportage bi naka la demee pèlerins yi kontaan nañu wax wax nañ ci li nga xam te ne moo di euh, train bi am na njëriñ macha allah dañ leen jox dig daje rek euh, ci kanam tuuti ak yeneen reportage euh, ngeen ànd ak waa Hann TV ànd ak sama caméraman bu ñaaw nuyu bu naa ma borom bu ko defee rek ci kanam tuuti rek leen jox rendez-vous